am Georges di lay nuyu di nuyu ñëpp euh, xibaar yi li ci gën a fës euh, cib dox euh, cib toogaanu ñaxtu la taskatu xibaar yu senegal yi di màggale bés bi ni jagleel ci àdduna bi moom sa bopp ci métier tasum xibaar ñuy naqaru jafe-jafe yu bëri yi ñuy dund ñoom taskatu xibaar yi muy xayma yu doy yu OMS di kuréel gi teew wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi siiwal lu ëpp téeméeri million yi nit si daañu faatu at mu nekk ci àdduna bi ndax garab yu baaxul njiitu brigade des douanes bu Kaolack moo ko xam ne mu yokk si ne garab yu bëri yi ni jaay ci Afrique baaxul reer ci diggu àll noonu la Ousmane Sonko jàppee président Macky Sall euh, gannaaw kàddu yu njiitu réew mi yëkkati jëm ci wax ne euh, ku amul njëgu péage na jël route nationale bi njiitu Pastef di naqarlu yooyu lay kàddu dañ sa xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak ci yenn yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su du ci ay faram fàcc El Hadj mbokk dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak euh, màggal gi ñuy màggal tey ñetti fan ci weeru mai euh, bés bi ni jagleel moom sa bopp ci méccum tasum xibaar ci àdduna bi euh, fii ci Sénégal nag kuréel yi taskatu xibaar yi ab toogaanu ñaxtu lañ na ma amal te ji ci suba gi te buntu ministère de la culture de la communication loolu nag ngir naqaru jafe-jafe yu tar yoo xam te ne taskatu xibaar ñi ngi koy dund fii ci réew mi Bamba Kassé mu jiite taskatu xibaar yi ci réew mi Sampix ñu déglu ko. waaw xam nga bés bi la bu ñu jagleel liberté presse ci àdduna wërngal këpp nga xamante ni ci réew yëpp mooy réew yu gën a mag yi am démocratie comme réew yi nga xamante ne amul démocratie dañ koy jëmmal euh, ñun nag dañoo taamu bi yoon jëmbalee ko euh, def benn taxaw ñaxtu euh, ndax dañoo seetlu ni ci jamono yii ñu weesu Euh, attaques yi nga xamante ne dañ ko def ci kaw journalistes yi dafa commencé jéggi dayo yéen a ngi fàttaliku ak groupe Futurs Médias attaqué nañ ko ba jëm ko taal soleil naka noonu am na ay journalistes yoo xamante ne dañ leen dafa xotal doon leen menacé ba léegi sax mu ngi wéy euh, en plus de tout cela yéen ngi fàttaliku ni coupé dagg nañ fi ay signaux ay tele ci loo xamante ne tamit jaarul donc yooyu yëpp di ay euh, gàllankoor yoo xamante ne dañ koo teg Euh, li nga xamante ne mooy liberté de la presse ndax liberté de la presse mooy sañ-sañ bi nga xamante ne journaliste yi ci àdduna bi yëpp dañ koo am pour mën a di def seen liggéey seen liggéey rek weesu lu dul di euh, taataanal ak di jottali ay xibaar yu wér te wóor euh, askan bi donc nag bu fekkee nii dañoo dem ba booy def sa liggéey ñu war la cee xoqatal war la cee sax gaañ ñun nag jàpp nañ ni dañ ko war a ñaawlu ci fànn boobu nañu jàppee ne moom nañ ko war a ñaawloo mu nekkoon euh, Bamba Kassé jiite SYNPICS di syndicat bi mu xibaar xibaaru Sénégal yi euh, kon toogaan ñaxtu boobu ci kanam tuuti bu 10 heures jotee lay doon ci buntu ministère de la culture de la communication bokk na lu ñuy sàkku ñoom tam taskatu xibaar yi ñu daal di jëmmal euh, jëfee lii di code de la presse bu bees bi di code de la presse boo xam te ne xëy na bu ko doxalee dina saafara jafe-jafe tar yi nga xam te ne reporter yi ndaw ñi ngi koy dund ñoom nag ñi koy fësal ñu déglu ci Ndeye Mati Dieng ay stage yu dul jeex ay ndaw yu ñuy noggatu ci seenub liggéey ci yile anam la ndawi reporter yi di liggéeyee ñenn ñi ci ñoom dañuy dem ba seen ngor du ko mujjee àttan ñu mujjee daal di bàyyi loolee moo dal Zeynab Sankare nekkoon rédactrice en chef ca Leeral TV. vingt reportage yoo xam ne thématique différente nga andi ko ànd ak ay jeunes nga ñëw weer bu dee ñu tàllal la loxo trente mille francs xam nga loolu dafa mel dañ daan am ay problème woo ma ne sama woyofal ma daal mu bëgg a concentré ci sa mission bu metti boobu noonu. ci yooyee jafe-jafe ñu yokk ci salfaañe seen liberté d'expression Cheikh John ne dañu ko jaay doole ca réew mi quotidien gëm doon liggéeye lu tolloog at ak ñeenti weer. ati laa dugal manifestation bi am rimbi dañoo war a arrêté di euh, exploité jeunes yi ci biir rédaction yoon ci loolu la ñu woo ñu ma kaay jël sa rémunération après ci biir rémunération enveloppe attestation de stage ci lañ ko dugal en lan moo tax dèjà du yoon leer ba ko def naa halte yi di sàkku ñu gën leen gëddaal rawatina ak ndawi reporter yi nit ki ngay liggéeyloo am na noo xam ne condition yoo xam ne bu ci nekkee dina def lu mu war sa def soo joxul nit ki ngay liggéeyal dignitéem rek il est exposé capable na def lu ne bëgg jëmal code de la presse ngir ñu gën a ñoŋal anam ga ñuy liggéeyee moo waral journaliste yi ne altine gi dinañu amal ab taxawaayu ñaxtu ca buntu màkkaan bu jëwriñ gu ñu dénk wàllu communication. RFM. ak RFM kumpa jeex na. 8h tegal juróomi minute way ci xibaar yi wax lu soxal wàllum wér-gu-yaram ak euh, ay biir yu daw yu ñu nemmeeku ci dëkk bii di Medina Bafe nekk ca diwaanu Kédougou foofu nag lépp ñeent fukki nit gis na ne loolu dal na leen tax sax ba ñi nga xamante ne ñoo fa nekk yor wàllum wér-gu-yaram xalaat ne boo moytu ndox mi moo ko indi. dañ ciy déglu euh, médecin infirmier chef de poste bu Medina Bafé Abdou Camara ci micro Ibrahima Jabaxate euh, diir buy daw bi moom xam naa qualité ndox bi bokk na ci euh, xëy na sax duñ ci mën a ñàkk wax tàngoor bu nga xam ne am na mais chaque kii bi ndox bi moom bokk na parce que fii ndox bi même boo ko tànqee nii da ngay gis ni ay ay tilim tilim yoo xam ne day nekk ci biir yoo xam ne balaa nga koy jëfandu di ko di ko naan normalement da nga ko war a traité Euh, mois bi passé moom am naa ñeent fukk ñeent fukk ba presque ay vingt sept laa amoon vingt sept cas mois bale passé euh, février quant mois de mars on a ay quarante cas et c'est un nombre boo xam ne sax maanaam bu ñu ko kéemanoo mois année bi xam naa ne nekk na ci nombre boo xam ne moo ci gën a gën a ëpp ren moom en tout cas dafa bëri cas de diarrhée moom période bi ñu toll nii moom dafa bëri mais xëy na peut avec euh, vulnérabilité ci zone bi am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na amuñ njëgu di jënd ay ay produits yoo xam ne dañuy traité ndox bi mu nekkoon euh, Abdou Camara di ICP infirmier chef de poste bu Medina Bafe di dëkk bu nekk ca diwaanu Kédougou des ba léegi ci wàllum wér-garam ak garab yu baaxul euh, bu ñu sukkandikoo nag ci le OMS fësal ñeent fukki garab yoo jël ci Afrique euh, ñeent téeméeri garab yoo jël ñeent fukki baaxul te nag ñi ciy faatu toll na nag ci lu ëpp téeméeri million ngi doomu aadama ci ñàkk seen bakkan at mu nekk ci àdduna bi loolu nag ki ko xam ne mooy commandant brigade bu Kaolack moom lieutenant euh, colonel Mame Assane Cissé di wax ni ñu gën a moytu ndax loolu loraange mi ngi ci ñu déglu ko moom lieutenant colonel Mame Assane Cissé ci micro Ibrahima Diamé. garab yi dina rey cent mille personnes par an cent mille personnes dana leen rey nee nañu aussi tamit boo ko xoolee. ñeent fukk si téeméer loo jël garab yi nga xam ne yooyu ñu ngi surfe si Afrique baaxuñu boo ko seetee garab yi sànq yi ngeen xool ay lan nga si gis ay aphrodisiaque nga si gis ay ay ay paracétamol yooyu nga si gis aphrodisiaque yi par exemple mi ngi mel ni rek nga jël 2 chevaux carcasse bu 2 chevaux bëgg si teg moteur V8 mais bu commencé carburé carcasse bi day daañu day toj. gis nañu sax ay ñoo xam ne dañuy am fissure cardiaque du fait de ces de ces de ces produits aphrodisiaques là dara baaxu ci. on a vu des insuffisants rénaux nos médecins euh, les néphrologues là chaque jour ñi ngi ñi ngi alerter population ñi ngi alerter population wax nañu ba sonn nag yooyu. ñun non seulement dañuy jëf pour aar koom-koom mën waaye aussi tamit war nañoo wax pour gën a mën a sensibiliser population yi war nañoo gën a mën a jàppale parce que la def defuñu ko pour ñun pour ñoom lañu koy defal parce que trafiquant bi fu muy jógee si kër la jógee si kër lay dellu suñuy doom lañu suñuy mag lañu suñuy rakk lañu suñuy lépp lañu donc war nañoo mën a waxtaan ak ñoom kan saa seen xel yi gën a mën a dellu si waat pour ñu éviter def yenn yi mu ne woon euh, lieutenant-colonel Mame Assane Cissé di commandant euh, brigade subdivision des douanes bu nekk ca Kaolack kon euh, téeméeri junni doomu aadama nee na ñooy fàttu at mu nekk ndax garab yu baaxul ci àdduna bi gannaaw wér-gu-yaram ñu wax lu soxal wàllu njàng mi ak ñi nga xamante ni ñooy jàngalekat yi seen seen lijaas nekk position de sage ñoom nag tey ji ci suba daañu amal ab toggaanu ñaxtu ca buntu Fastef di daara ji tàggate ñii di jàngalekat yi li ñu bëgg nag mooy ñu daal leen di tàggat ñoom jàngalekat yooyu xam ne ni lu jege ñetti junni seeni nattango ba léegi ñi ngi xaar ñu tàggat leen depuis atum 2012 ba léegi des ba léegi ci njàng mi ak ñuy bàyyi jàng ak ñoo xam tamit jot ñoo nekk ci lekkool yi loolu nag ni nekk ñu jaaxal lool kilifa yu dëkk bi di lebbe di kuré nekk ci diwaanu Kédougou tax nag ñu ci xalaat yan pexe lañ ci war jël ngi daal saafara jafe-jafe googule Ibrahima Jaxbaxate ndaje yi ak waxtaan yi bëri ñu nemmeeku taxul ba abandon yi ak décrochage scolaire yi wàññeekut tey mi a law ci élémentaire Baba Ñaxasu bu commune bu Medina Bafé ci téeméer élèves jot a bindu juróom-ñetti fukki ñoo jot a jeexal at mi Mbapi Diop mooy directeur école élémentaire Baba Ñaxasu même situation bi dañ koy dund donc ci ñooñu aussi ñi ci gën a remarqué ñooy décroché wala ñu abandonné mooy jigéen ñi ndax jigéen ñi boo koy xool fii ni condition de travail fii dafa xaw a metti donc ce qui fait kon jigéen ñi sont exposés ñoom généralement dañu duñu mën a supporter ñaareel bi mooy affaire mariage bi ak euh, grossesse précoce maanaam dañuy teel a jël am sa jëkkër wala ñu teel a jël am. waaw loolu moom vraiment boo xamante ne nii. wax dëgg yàlla ba léegi mu ngi fii ci collège bi ci téeméer élèves yi jot a bindu juróom yi bàyyi nañu depuis mois de décembre Karam Fanding Kanté mooy principal collège bu Medina Bafé. taux d'abandon ba vingt te ñun sax dañoo tiitoon sax. abandon ana mariage précoce teel maye xale jigéen yi am na ñoo xamante ne bu nekkee CM2 lañ leen di may jëkkër ñu ñëwee sixième cinquième avant ñu egg rek alors ñu rejoindre seen jëkkër yi moo tax pour gis xale bu jigéen boo xamante ne def na sixième cinquième dem ba troisième dafa raar trop man troisième souvent waaw waaw at bu nekk benn xale bu jigéen rek mooy nekk troisième fii moom maintien élèves yi doon na ay jafe-jafe yi chef d'établissement ak yi jànkonteel ndaxte seetlu nañu di wàññeeku weer bu nekk Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegsi ci wàllum politique ak Ousmane Sonko njiitu Pastef mi addu ah, ci kàddu yi nga xamante ne président Macky Sall yegsi na ko bërki dembo ci bi mu dalal ah, sànqal syndical yi doon ah, métitlu seeraayu autoroute à péage bi président Macky Sall nee na que péage bi daal neexaluñ kenn ku ko mën na jël ku ko mënul na nga national bi Ousmane Sonko di ñaawlu kàddu yooyu ak waxin wi moom mu gis président Macky Sall jamono ji mënees na koo méngale gaynde gu réer ci diggu àll bi. Angelina Gomis. Macky Sall waxati na suñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko njiitul réew mi di Macky Sall nag daal dina wax ñi ko fal suñu amulee njëg li jarul ñuy jaar ci apéage apéage bi nga xamante ne prix dañoo daal di seer lool ak ñi nga xamante ne seen situation demeewul noonu te république mi moo leen ko teg ñooñu nag nguur gi jarul benn yoo ñu leen di bàyyi xel lii lee lu Ousmane Sonko wax moom nag moo ngi ñaawlu bu baax a baax kàddu yi nga xamante ne président Macky Sall moo ko wax ndax nee na nit ki nga xamante ne askan bi moo ko fal warul di waxee nii lettre bu mu publier ci facebook am nee na nag autoroute à péage Dakar Diamniadio arnaque la jëmale ko ci citoyen sénégalais bi Ousmane Sonko moo ngi xamal ne financement wu autoroute bi ni la tëddee nguuru Sénégal daal dina financer lu toll ci cent quatre-vingt-un milliards cinq cent millions de francs CFA quarante-neuf virgule trente-neuf pour cent pourcentage participation ak quatre-vingt-trois virgule quarante par réel maanaam lu mu ci war a am état ak Eiffage banque mondiale nag daal dina joxe cinquante-deux milliards cinq cent millions francs fa moom nag pourcentage de participation nekk na 14,29 pour cent Abad nag 33 milliards 200 millions la daal di joxe pourcentage de participation daal di toll ci 9,3 pour cent AFD 39 milliards 300 millions moom nag participation toll na ci 10,69 pour cent Eiffage nag daal dina joxe 61 milliards participation daal di nekk 16,6 pour cent par réel maanaam lu mu ci war a am nekk na 16,6 pour cent wax ne kii di jëfandikoo moom mooy rembourser remboursé prêt yi nga xamante ne dafa dem ci 34 virgule 1 pour cent Ousmane Sonko nag moo ngi sàkku ci président Macky Sall mu dal di publier contrat initial ak complémentaire yi ak contrat bi nga xamante ne moom la ñu négocié waatoon moo ngi wax tamit nañu def confirmation am na wala amul protocole d'accord yi nga xamante ne dafa jëmale ci ponk yu bëri lu ci mel ni augmentation wu cinq ans ci durée yu concession autoroute péage Dakar Diamniadio AIBD ak fusion wu ñaari contrat yi Angelina Gomis des ba léegi ci soxal wàllum politique ak dogal bi ëttu at bi di cour de justice bu CEDEAO daal di jël ci semaine bi euh, sàkku nag ci nguurug Sénégal mu daal di fi dindi parrainage fii ak euh, juróom benn weer ndaxte dañoo gis ne loi boobu dafay jalgati ak ak yelleefu doomu aadama yi euh, ñoo ñi di waa ñoo lànk ñoom daal di ci addu ñoom nu ñu gis moo day wane ne président Macky Sall falaat gi nga ko falatan catum jaarul yoon et que jamono ji li war a def mooy amalaate yeneen i woote yaay élection yi Seydina Mohamed Diallo mooy secrétaire administratif bu ñoo lànk ay kàddoom ci jokkoom ak Angelina Gomis. arrêté bi CEDEAO génnee nekkul arrêté boo xamante ne da koy génnee mu yem ci ay bind parce que arrêté boo xamante ne ñu actuellement Sénégal réew mu ñu nekk suñu président bu ñu am am amin bu ñu ko amee jaar yoon dañu ne dañuy nangu nag mu toog deux ans c'est mais ñett at yu def dañuy nangu mu mu ñuy jiite ci anam boo xamante ne jaar ci yoon ci loolu da koy def ay élection yoo xamante ne buñ ko falaatee si loolu noonu mu ñu ko nangul moom mooy suñu président sinon duñ ko nangul moo nekk suñu président te fu mu bëgg ñu ko fa dinañ ko fa eggal Macky Sall ba mu ngi rey réew mi ba léegi mu ngi xool lu muy di day nappe rek naa man kese maa war a wax ak ñu ànd man ku wax ku àndaloo man bu waxee ma tëj la wala ma faagaadal la wala ma am ma santaat la mais loolu nag gis nañu sénégalais yi léegi dañoo ànd ak jamono ji dafa am effort réseaux sociaux yi sénégalais yi topp loolu ku amul euh, ay possibilité dem rajo wax ay xalaatam te mu dem télé wax xalaatam bu ko neexee toog biir këram jënd connexion am wax xalaatam ci réew mi ni muy doxee te loolu c'est un droit fondamental boo xamante ne suñ constitution moo ko garanti muy liberté d'expression les libertés publiques te Macky Sall seetlu nañ moom fi nekkee ba léegi képp ku wax loo xam ne arrangé wu ko rek dina xool nu mu lay a faagaal dalee yegsi ci xibaaru tàggat yaram andi ceek Malal Junior Diagne Diagne maa ngi laa ngi laa fay El Hadj Ndiobo. loo ka doore. Euh, fukk ak ñeenteel bi journée championnat Sénégal démb ñu nekkoon nag si kaw daanaka ñu ëpp ci ñoom dañoo ami jël douane dañu ko daan ca Thiès ñaari bal si euh, benn ca Ziguinchor Casa Sport daan fa waa Teungueth FC benn bal si dara ci euh, Dakaru Stade de Mbour tëwoo ak waa Dakar Sacré-Cœur kenn dugalul dara. Alassane jigo moom foofa Pikine moo fa daal di kon daje ak njàngoor bu noppi daal di ko dóor benn bal ci dara ki def jéego yi am solo mooy génération fit mi profité daal di dóor ñii di waa Gorée ñetti bal ci dara loola tax ba gars yi daal di yéeg nag fekki ca kaw ñii di waa Teungueth FC entraîneur bu euh, équipe bu euh, génération foot boobu di Djibi Fall rafetlu ak euh, taxawaayu goneem ya ci seen kanam ak seen diggante ak ñii di waa Gorée moom Djibi Fall yëkki na kàddu jàngat li xale mi wane. bi ñuy ñëw dañu waxoon suñu joueur nii il faut ñu xaar ni dañu am match bu metti parce que match retour yi match yëpp day metti ndax équipe yi nekk suuf dañuy xeex pour bañ a wàcc équipe yi nekk si kaw aussi dañuy xeex pour am ay place yoo xam ne ñoo gën a ñu occupé et yàlla dimbale nañu ba marqué nañu but waaye bi ñu ñëwee ci xaaj bi euh, ñu ni woon comme ñun ñoo mënee dañuy changé waat suñu taxawaay Eh, dañuy bàyyi kenn ci kanam ñëw feesal sunu milieu pour mën a récupérer ay ballon waaye pour mën a am espace pour contrer adversaire bi ndax adversaire dina génn bàyyi ci ginnaaw lu bari te am nañ ay joueurs yoo xam ne yu am vitesse la xëy loolu nañu arrangé mais eh, bi ñu ñëwee euh, joueurs yi dañu xaw a reculer ñu am ay problème trop ci milieu terrain bi ndax adversaire dafa nangu woon milieu terrain bi mu am juróom minute wala juróom ñaari minute yoo xam adversaire bi jël na match bi sonal ñu eh, bi ñu gisee loolu ñu ne ñu changer sunu taxawaay génne ay jour dugal ay joueur et surtout ci milieu terrain bi mais biñ ko defee équipe bi commencé naa amaat taxawaay bu baax ba commencé waat dem ci kanam ba yàlla def ñoo may occasion ba dugal deuxième but bi ak troisième bi mais man li ma ci gën a neex mooy deuxième but bi parce que loo xam ne la dañ doon insister di ci liggéey te ay match ngi nii dugaluñ ci but kon tey suñu dugalee but si balle arrêtée donc loolu euh, maanaam lu may neex la parce que tamit dafay wane ni rek su ñu gënee insister ci travail ci côté boobu balaa raté yi mën nañ ci am ay ay ay but kon euh, classement bi te Teungueth FC ak waa Génération Foot ñoo nekk sa kaw am na ñaar fukk ak ñeenti poñ topp ca pikin euh, ci mbaba daara bi euh, Gorée ak ñaari télé ñoo fa toggee lig 2 Sénégal itam démb Linguère dafa tëw waa Demba Diop ku ne am ñaar sa kaw ngi morom Wakam daan waa jamono ñetti si dara. Linguère moo ne ca kaw ñaar fukk ak juróom-ñeenti poñ la am topp ca Guédiawaye football club ñaar fukk ak juróom Wakam topp ca di ñaar fukk ak ñeenti poñ ñetti équipe yi yëpp nag boo leen xoolee di nekk ci classement Ligue 1 bi euh, Ligue 2 bi ñoom ñëpp Ligue 1 la ñu jógee dañooy fipp ngir fexe euh, daal di yéegaat nu waxtaanee wàllu basketball euh, démb Moustapha Gueye jotes naa yëkkati kàddu siiwal ni de Sagana jóg mooy ki ñoo toftal ci euh, Boniface Ndongue ñu daal di doxal équipe nationale basket bu Sénégal waxaale na tam jëm ci euh, tournoi qualification Jeux olympiques si góor ñi ak itam siiwa liste xale yi jigéen ñi war a dem ci waajal afro basket bi soo de cam teewoon na ndaje ma mu nekk jamono ji ca staff bu Stone Rockets Ngagne Desagana Diop moom nañu daal di jox postu premier adjoint bu sélectionneur gayndeek basket gi directeur technique national bi di Moustapha Gaye mi nga xam ni moom moo daal di biiral googule information di dellu si waata ca choix googule bi Boniface jëlee place yi ba léegi Mamadou Gueye Pape yi waan moo doon deuxième assistant mu amoon nag ay waxtaan seere pour le premier assistant tey ci Ngagne mu reconvertir euh, Ligue mineure yi États-Unis après mu dem pendant quatre ans mu nekk ci staffu Utah euh, aujourd'hui mu ngi dans le staff assistant au Houston chargé des préparations de match ak de stratégies mu doon une place stratégique dans un staff staff gis daal xëy xeet ko si li ñu gis rek entraîneur titulaire bi mais assistant yi ñuy préparer les matchs di def stratégie c'est c'est c'est vraiment des des euh, très importantes donc le ñu koy dalal jàmm di ko ñaanal yàlla yaakaar bi ñu liggéey bi rafet yàlla ma ñu ndam moom ancien international sénégalais bi nag kon dugg na ci staff équipe nationale masculine bi ci jamono ji nga xamante ni gaynde yi ñi ngay waajal lii di tournoi qualificatif olympique bi ci noonee sax jot na noo daal fësal ab liste fukk ak juróom-benn di joueur ñu gis ci benn meneur gu yees di Henri Pierre euh, l'entraîneur Bodi Fall dafa choisir ut ñaari suba ñaan bu ko yàlla lu ne mën a xew blessure mën am feebar mën am mais Sénégal a toujours continuer léegi comme émission bi ci jot rek ñu tànn kii ànd a yaakaar mais moo waral olympique bi nag ñu ngi koy amal ñaa fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin jàpp ñeenti fan ci weeru sulet ca Belgrade ca Serbie senegal nag moom mi ngi nekk ci poule bi bokk kooka Porto Rico ak Italie. tabarkalla Alaaji. jaajëf Diagne. acca kon aywa daan na. ba ci kanam ñu yendoo jàmm ci kanam incha allah. rajo askan wi. wàllum aada cosaan la ñuy wax léegi chronique culture bi dañ ci ànd ak Anna leen di nuyu mbokk yi Mbaye Babacar Diouf mu ngi exposé ca musée Théodore Monod kurus tijaan bu mag juróom-ñaari téeméeri kilo de bronze moom la daal di jëfandikoo ngir mën a réaliser œuvre boobule. dëgg la liggéey bi jëlal na ma lu ëpp sax ñaari at waaye li ma li ma gën a jàpp mooy liggéey bi tënk la ci wàllu li ma daan def depuis 2014 ci wàllu spiritualité wàllu. dox bi jàmm bi di dox digganteem ak boromam eh, teg ko ci wàllu yarandu mag ñi li ñu tuddee tasawuf tey dafa jotoon ma def liggéey bi nga xam ne dafay tënk loolu lépp te kurus moo nekkoon objet bi nga xam ne vraiment moom moo doon ñu loolu lépp kurus boo ko xoolee kurus bi lépp xànjar la waaye nag eh, li am solo mooy ñu xam ne ñun jeune artistes yi tey am nañ liggéey bu rëy rëy rëy bu ñu war a def fii ci Sénégal ak bitim réew loolu moo tax nag il faut que nag ñu ñu ñu gën a am fit il faut que nag ñu liggéey bu wóor a wóor pour mun a représenter Sénégal partout te loolu je pense que lu am solo la waaye nag loolu munoo ko def te départ ci say conviction ak say yëg-yëg man nag noonu laa sentir mbir mi te vraiment noonu laa ko fas yéene wone ci perle bu ne nag daal dina ci euh, bind juróom-ñeent ñeenti turu yàlla yi moom artiste plasticien bi lee yaakaar ne ak œuvre bi nga xamante ne daal dina ko def mbooloo mi dinañ am curiosité dem dugg ci ab musée xool la lañ fay denc. bu fekkee wàllu liggéeyu musée pour mun a euh, ñaax sénégalais bi nga xam ne moom xëy na miinul art trop euh, genre œuvre yi xëy na dina ko. moom dina ko comprendre dina ci am accès ci lu bëri ndax euh, objet boo xam ne objet bu Sénégalais yi xam la objet bu Sénégalais yi miin la waaye liggéey bu ñu war a def pour que Sénégalais yi mën a miin musée yi ak galerie yi liggéey boobu mu ngi tàmbalee ci éducation au niveau des les établissements ci wàllu création ñu ñu ñu gën ko jox kàttan gën ko jox doole nit ñi xam ne aussi am na ay doomu aadama yoo xam ne leen yitteel moom mooy seen xarañte yëpp mu ngi jëm ci wàllu wàllu nataal wàllu defar dara te li ñuy tënk lépp loolu ci mbirum doomu aadama aadama dafa am lu ñuy véhiculer dafa am lu ñuy wax donc am na solo ñu leen tamit ndax ñoom ci lañu bokk te vraiment war nañ encourager nit ñi ñuy ñëw di di xool euh, création yi artistes yi def au niveau des musées et des galeries au-delà même d'autres expressions artistiques yi ñu xam maanaam wàllu musique ak théâtre ak yooyu wàllu art visuel daal euh, xam naa ne eh, gars yi ñu ngi ciy def liggéey bu ama am am solo donc ñu ngi invité Sénégalais yëpp ñu gën di fréquenter galerie yi ak euh, musée yi pour mën a xam li artistes yi di liggéey ndax pour ñoom la déjà. perle de lumière mooy turu exposition euh, boobule dina woy nag ba fukki fan ci weeru mai gi ñu euh, nekk kon te musée Théodore Monod fii ci Ndakaaru mbokk yi fii la ñu ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax baax ci diglu bi dig daje ëllëg incha allah. Savon de Marseille Seen gamme ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi El Hadj Assane Gueye lañ ci àndal. feetuk premier mai gi ak ndaje ma doxoon keroog ca pale ba diggante président de la république ak syndicat yi ak lanu fa jëlee doon lu yéenekaay yu bari xëyi tey ci observateur président Sall lank caa doon mu ne kuy wax lu mu dul def ma nga naan syndicat ya taxaw jaamaarlook ab gréew moo ma gënal signé accord yoo xamante du ma ko doxale lu ñeel autoroute péage géeg ñi ŋàññi certe gi ca paas ya président Sall ba tey observateur ne yoon wu baax daa am njëkk lu ko mooy am na yoon weneen wu jaar ca wet ga ak i kàmbam Abdoul Mbaye ancien premier ministre ci Vox Populi ne ko waaw ba tey choix waaye di ko fàttali moom njiitu réew mi ne yooyee kàmb ci yooyu tali état lank defaral askan wi moo jural askan woowee accident ba ci bakkan yu rot gi Marie Sagna ne président nangu na kon ne ñaari yoon a am Sénégal bu borom barke ak bu baadoole yi Ousmane Sonko ne askan wi ci boppam ñoo méritéwul loole président bu koy delloo ci ñàkkam naan ko yoon woowee des sudee yoro moom président de la république mel ni kuy tontu ci le soleil di ca wax ni ko askan wi ñoree social gi mu ne mooy mës doon ci xolog Macky Sall ak i dëggam ak lu néew la fa syndicat yi jëlee waral yéenekaay bi ne plate bu tàng la leen taajal keroog ca pale ba moom jiitu réew mi nag benn di leen xamal ne ngëneeli fonction publique mëneesu ko gàddu rek dem moom ci lu sax mëneesu la it di wéy di dundal ak yi mag ci fonction publique yi cay tardeel ndaw yi bëgg dugg ci marché xëy mi boytu kopparu réew mi président ne mënta dëkkee yi leble ndax état du banque lu jëm ci juróom-ñetti junniy prestataires yi Sénégal it mu ne xel xalaatul recruter leen ci la république ne mëneesu la wéy di entretenir mag ca ndaw ñi ne gaañ taxaw di fëgg ngiram xëy ñoom it Sud Quotidien ne mu yokkuk atuk à gi ba juróom benn fukk ak juróom di wàññi teg lempo ci salaire yi syndicat yi bëggoon ci moom di forfe ci wàllu ndox ak kurang fépp mag yi lànk na Les ko jàpp ne moom président keroog ci ndaje mi ay dëgg yu mu waddul benn yoon la yeggee syndicaliste yi atum à la du juróom benn fukk ak juróom mu ne du ko def yokkum salaire yi ma ne su la yittewoo rek cim réew téeméer juróom fukki junniy sénégalais yokkal leen ba ña ne ay doomi Sénégal péage gi it muy fàttali ñi gisab certe ci yoon wa ne yoon weneen a nga ca wet ga laat tribune moom xëy jukkee ca ndajem keroog ma waxin wi ñu ne président day mer rek le président s'énerve s'énerve et s'énerve ci xamuñ ñu ne lu ko waral ab jege ñaale président nag daa war a am sago ak di yamale ci waxam ak doxalinam loolee Maodo Malick mbay ni waxee ci lii quotidien yéenekaay bi jëlaati waxam démb ci grand jury RFM moom directeur général Adamo muy dàq ni ministre chef de cabinet bu président Mame Mbaye Niang waxe ci ñenn ci ministre naan ay incompétent la ñoo ak yeneen gouvernement mu ne solidarité ci war a jiitu wàllu parrainage gi Maodo Malick mbay ne ànd na ca ndax nag segg munta ñàkk ci fu téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti mbër ndoppee wàcc arène bi ngir bëre waaye la ànd moom Maodo Malick mu ne mooy dogal bi ñu yëgoo ca mu doon def lu baax du mës a nax saay misaal di nettali source a diggante jaraaf bu ndakaaru ak président Lamine Diack mi nu fayal caution incha allah ba nu yaakaar ak ñibbiseem ndakaaru ayu bi yéene kaay bi ne ñetti ñaar fukki millions yi jaraaf génne jële ko ci njaayum terrain club bi soosee ndekee président Lamine Diack ko mayoon club bi jaraafam ndakaaru atum 1970 fanweer ak benn ci at tey sunu borom wane ngënee def lu baax source a ne jaraaf nag jox nañ leçon kóllëre waxante dëgg ñi président Lamine Diack defal lu ne démb ca tey bi ñuy wax waxi caution fayal ko ñu ne mes ne mër wàllu wér yaram observateur dalal professeur El Hadj Niang responsable de formation en imagerie médicale bu université Cheikh Anta Diop lu jëm ci tiis ba woon ca Linguère mu ne daan moom faw mu am munta ñàkk la woon it ci hôpital bu Fànneb lakk ca fay dalal ñi amee jàngoro corona professeur ñaane ëpp naa tuutal corona gi nag la surveiller yooyu doom bi jàngoro yi sopparñiku làmb ji la lañu jeexale gis-gisab deuxième tigre bu Fass Moustapha Gueye ci làmbi bombax Bombardier bala Gaye 2 mun na doon ak fiir mu ne combat piège ci bala Gaye 2 Tapha Tine Tapha Gueye jàpp ne su bëggee ne faax toog toogaay bu jekk ci ëttu VIP làmb ji faaw mu daan